dañoo ñëwoon fii tey ci Medina Baye pour lancer officiellement démarrage yu travaux projet boobu noonu ñu tuddee taaral Kaolack comme nous mu lañ koy waxee sama déclaration bi ci suñu siège dañoo créer projet bii nii ngir indi réponse ci wàllum question insalubrité bi nga xam ne Kaolack moo ngi koy jànkuwanteel ak Kaolack waay tey nag ñëw lancer ko fini, nii ci Medina Baye kam Medina bay raison yu bari nañ mais dañ ci japp ñaar bu ci ñëk Medina bay symbole la symbole la ndax Medina bay moy capital Fayda te Fayda Tidiane tay compte na plus de 300 millions d'adhérents donc dëkk bi nga xamné né moy capital Fayda warna bok ci lieu yu ñu wara gëna gën lolu bok moy ben raison bu njëkk lutax ñu ñëw fi lancer fi mouvement bi projet bobu nu mu tuddu taral Kaolack xam ne dara tax ko jóg lu dul fexe Kaolack am cadre de vie bu gën a agréable ñaare raison bi mooy set ak setal diine lislaam moo ko njëkk ji moo ko njëkk digle kon day jaadu suñu amee initiative bu mel nii ñu defee ko ci lieu de culte yi moo tax tey jii tamit ñu choisir fii nii nga xam ne fii may place julleekaayu Medina Baye maanaam fii la ñuy jullee iit moo xam korité wala tabaski

donc euh, ci projet bi nga xam ne mooy taaral Kaolack bi nga xam ne moom lay lancé tey donc euh, après final bi aussi vraiment am na benn plan d'action boo xam ne danañ ci ànd ak moom ànd ko équipe bi su ko defee mené plan d'action boobu au sein des quartiers pour que wax dëgg yàlla ñu mën a am réussite bi nga xam ne moom lañ soxla. am na benn commission boo xam ne benn comité boo xam ne mettre na ko sur pied Sidi Samb mooy coordinateur bi au niveau de la zone donc dañ ci ànd ak équipe yëpp vraiment comme ni mu ko waxee sank nag Kaolack dañ ko euh, zone bi dañ ko diviser en 4 donc jaune léegi quatre jaune yoy nonou ASC yi fa nek donc chaque jour dañuy japp ben jour bo xamné ne ASC yëpp vraiment dañuy def compétition mu doté len ay matériel ko defee ñom ñu mëna def assainissement boobu suñu paré maintenant amna ben coupe bo xamné ne da koy teg pour que maire ASC bi nga xamné mom moom la quartier am gëna set vraiment au finish ñu jox ko coupe boobu. tey indi nañ fi ñu né fukki birbet mu ngi nii tegee fukki pôle yoo xam ne ci la ñu def mbalit mu ngi nii in nañ ñeenti sareet ñu ngi roñ mbalit mi man fayu ma ci benn dërëm de man bu ma kenn jox benn dërëm soxla wu ma ko maay jël suma xaalis de ci soxla soxlawu ma dërëm kenn mu tegaat ca lan grillage yii ngeen xam ne bu fi amuloon ba léegi garab yi nag lekk nañ mu ne danañu jox ñaata 40 40 rouleaux grillage loolu bari na te rouleau mu ngi jar 20 000 wala 18 000 nangam am na fu mu xaj ci moom am na fu feneen fu mu ko dugal waaye mune mom moom soxlawu koo dugal fenn bàyyi la koy jox boo ko joxee bàyyi mu jox li nga bëgg rabbi mu andang ak lan mu ànd ak mbooloo mi yëpp ñi ngeen fi gis ñëpp moo leen fi indi ne leen kaale ñu dem ñu bale julleekaay bi dégg naa dañuy bale julleekaay bi man ni leen gisee damaa ruus sax ndax lii ñun ñoo doon def di ci sonn lool tey ñu ñëw taxawuñu lañ waroon def ñun tey ak suba ñoom def nañ ko tey ñu ngi lay wax ne président sa bàyyi dana ko jëlee ci yonent bi yonent bi jëlee ko ci yàlla ñu jox la ko